politique tey jii ak Bougane Gueye Dany ñoo ñëpp daal di ànd boole ci benn coalition mu doon loo xamante ni dina dëgër lool pour ci élection yi ñu jëm. waaw foofu aussi euh, li ma la waxoon sànq rek ci diggante PDS ak euh, APR euh, mooy dellu si parce que boobu boobu coalition aussi mën nañ ko xaar ci élection législative parce que coalition la boo xam ne si ni mën nañ ci comprendre lu bari. bu ci njëkk moom mooy les spoliés yi nga xam ne si dañoo demoon ci élection présidentielle bi ñu génn ñu recalé leen parce que dañu leen recalé ni leen mënu leen dem ci élection yi pour des raisons x y donc xam nañ ni Bougane bokkoon na ci spoliés yi xam nañ ñi aussi euh, bi ñu demee tamit ñi nga xam ni ñoom ñoo ci ëpp muy Anta Babacar Ngom muy xalifa sàll muy euh, euh, Pape Djibril Fall gis nañ résultat bi ñu fa jëlee ay zéro virgule nangam ak pur ak la ca des mais boo xoolee ci biir coalition bi kan ngay jëkkataan mooy da ngay njëkk ni pur allié de taille la woon ci coalition bi ci Pastef ci Yewwi ci lépp donc bu ñu demee ba élément bu toll noonu mën a quitter le navire pour mën a dem carrément se ranger du côté de l'opposition alors que ñoo nekk au pouvoir te ñii nga xam ne ñoom ñoo nekk muy xalifa muy Bougane muy Pape Djibril muy Déthié Fall boo xoolee tey ji pur moo leen gënoon jege léegi nag le pourquoi ñaar ñi nga xam ne ñoo ci ëpp taxawaay wala ñett jour pour jour deux ans Déthié Fall xalifa Sall ñoom ñoo concocté li nga xam ne moo di Yewwi ñoo ko créé ñoom ñoo ko def li mu doon créé ossature bi créé lépp ba Yewwi existé. kon mën nañu jàpp Kader ni li Yewwi bu bees la. Yewwi bu gën a dëgër non Yewwi bu mais. ak ay bagages am parce que li tax mooy yeewi bii moom moo permettre ñu amoon majorité ñu amoon représentativité ci assemblée nationale. mais bu ñu continuer woon tuuti yeewi bi mënoon na créer ñu am euh, li nga xam ne c'est moo de la majorité donc su ñi nga xam ne ñoom ñoo porté woon bannière boobu a deux ans pour dem ci élection législative ci assemblée nationale ñooñu tey jii ñoom ñoo quitté pour dem ànd ak créer leneen bàyyi ñu ñu lool te je pense que parti politique bu ne. da ngay xeex pour accéder au pouvoir pourquoi ñu quitter le pourquoi mënuñu ànd bokk vision ak ñi nga xam ne ñoom lañ nekk loon démb il faut que ñu bañ a naxante bañ a wax wax waxi politicien dafa am ay constat yu ñu war a def am ay autocritique yu ñu war a def seet lan moo tax gis nga équipe nationale bu waree gañe gañewul mais sénégalais yi ñoom moom seen commentaire parce que équipe bi suñu équipe la mais gouvernement bi suñu gouvernement la dafa fekk ni dañoo dem ci bañeeru benn parti politique dirigé mais ñii ëppale wuñ ma ci le gouvernement actuellement man nañ ma ëppale ni ma ñoom parce que ay militants lañ ba man je ne suis militant de personne mais mën naa critiquer l'État en tant que tel les dirigeants ceux qui incarnent li nga xam ni si di moom moo di le gouvernement en tant léegi nag li am mooy man li ma jaaxal mooy pourquoi seen i alliés démb di quitter. d'accord man question boobu laa posé c'est pas man. ka def non. seen i yow tamit non pur dem na. élection dem na élection. non may ma ma pur dem na élection pur je parle des élections législatives passées. ah waaw législatives passées moo tax ma la jour pour jour deux ans maintenant. Ah. ñoom ñoo àndoon. di xeex le en place pour dem. am majorité à l'Assemblée nationale qu'est-ce qui a changé entre-temps pour que ñoom ñu mën a quitter seen ay alliés démb yi pour mën a ñëw dellu ci opposition bi. mais élection présidentielle yi moo fi jaar ñoom ñëpp ñu dem. tànn tànn ñoom ñëpp ku sa bopp ñoom ñëpp gis nañ lu am pire moo ci dara. jàpp leen ko foofu. mais man mais man mais man bëggoon naa bëggoon naa quand même. Ah, ah, ah, ci problème. pire bëgg interpeller parce que man du téye kan ku bëgg jëlal mais parce que man awma ci problème. saa yi bu ngeen sentiree dugg sama dugg leen. parce que loolu laa xam mais juste que dama poser ay interrogation nii lan moo xew entre temps. lan moom moo tax boo allié démb yi nga xam ne ñoom ñoo taxoon ñu àgg à l' assemblée nationale loolu bokk na ci lu contribuer faciliter le pourquoi tey ji ñu egg ci élection législative présidentielle bi ñu génn ngeen jël la pouvoir. mais tey jii ñooñu noonu dañu waroon kontaan pour nekk ci côté li nga xam moo di mouvance présidentielle bi pour demandoo ak yéen pour continuer am la même am la même majorité bi nga xam ne moom lañu doon wut yaa y a deux ans ci ginnaaw loolu nag su fekkee amul ah. lii am ci bëtu sénégalais yi mooy ñaar soit doxut soit am na quelque chose et que ces deux choses là ñaari question yi bu njëkk bi mooy li ñu yaakaaroon amu fa ci ñoom ou est-ce que gisuñu fa seen bopp gis seen bopp nag mooy est-ce que réellement li ñu yaakaaroon ci wàllu liberté ci wàllu démocratie ci wàllu développement est-ce que ma nga fa ou bien li nga xam ne si ni moom moo am dëggantaan mooy ay wor da ci am sànq yaa ngi wax baatu trahir trahir français la rek metti na nag ci dégg mais parfois ça peut choquer mais ñaanuñu mu egg foofu mais ce qui est sûr mooy ce qui est sûr mooy élection yi ñu jëm jeune pense pas mu nekk Pastef point d'accord il faut ko ñu ubbi léegi nag parti yi bëgg a dem sa soumettre ñoom la mais tey jii alliance bii am nga xam ne seen taxaw na ñu gis Déthié Fall gis Khalifa Sall gis PUR euh, gis euh, Bougane Gueye Dany Anta Babacar Ngom. Euh, ak Thierno Bocoum ça va yi. nañu nangu. d'accord nañu nangu ni am na quelque chose bu. d'accord opposition bi euh, nekk di créer mais juste euh, une précision rek non juste une précision damay fàttali internautes yi nga xamante ni ñoom euh, yëguñu wala sax ñu ngi door a jot ci information bi mooy coalition boo xamante ni taxaw na muy taxawu PUR PRP bu Déthié Fall Bougane Gueye Dany Thierno Bocoum Anta Babacar Ngom ak ki nga xamante ni moo di Pape Djibril Fall ñoo booloo rek ngir ànd ci élection 17 novembre. décembre yi ñu jóg lan moo xew juste une précision lan moo xew ba gars yi génn c'est-à-dire boo ko dégloo hmm. c'est-à-dire c'est c'est li ngay li ngay li li li nga nekk di euh, di wax nii parce que depuis sànq yaa ngi naan parti yi génn parti yi génn. lan moo tax ñenn mais ba léegi moom mënul lim parti yi génn ñi fi lim ñii ñëpp ànduñu woon présidentielle ñi mu fi lim ñii ñëpp.

ñu ñëw taxawu ba egsi ba fii donc bu ñu egsee ba fii mais les alliés de taille yi ngeen amul ci législative yi ñu génn laisse-moi développer suñ leen nangoo abandonné mais damay laaj lan moom moo non laisse-moi développer xam nga dañu jóge ci ay élection booy def échantillonnage dafay baax nga jël ci baromètre yoo xamante ne baromètre yu solide la mm. yan baromètre nga mun a téye actuellement mooy dernière élection yi nga xam ne élection présidentielle la élection présidentielle boobu noonu moo ñu may cinquante 54 virgule pour cent ñu gagné au premier tour élection yooyu noonu ñi muy cité ñi ñëpp nañ see kenn ànduñ see kenn mënuma ma cité benn. kenn koo xamante mënoo leen woon ànd. parce que ñoom aussi ay kenn dama may ma dama may ma non may ma ne tey li ngay wax nii lii amul su amul sens. non ah, sens la mais il le dit par rapport non non non laisse-moi développer. dama ne dama ne ah. élection yu ñu jógee. moo ñu may 54 pour cent. te 54 pour cent yooyu noonu ñi mu tudd ñii ñëpp ànduñ ci woon. donc baromètre yoo xamante tey échantillonnage boo xam ne bu ñu koy jël ñi ànd ñii ñëpp yàqul tey yun fu ñu taxawee. mais mais non te te coalition Diomaye bu muy wax nii mu ngi nekk di manipuler depuis sànq mu ngi wax. mais ba léegi tuddul benn parti bu quitté. même Moussa Diop bi ñuy wax nii dafa Moussa Diop dafa demal boppam mais quitté wul. donc il faut savoir raison garder. mais même mu ñëw rek mais mon grand. ba léegi non ba léegi. bul bul bul wax pour wax. parce que non s'il te plaît laisse-moi développer. non non du du benn non j'étais écouté parce que vous cherchez à me mettre en mal. non li ngay wax c'est grave non li ngay wax c'est grave. on parle de législative non li ngay wax c'est grave. non on peut pas parler de législative waxuma ba léegi de présidentielle. non non non non non non non parce que on parle de législative élection présidentielle waxuñu loolu. laisse-moi développer s'il te plaît su ma doon wax présidentielle dama wax dama ne. waaw sondage bi gën a taxaw actuellement. booy jël baromètre. élection présidentielle ngay jël moom y a juste cinq mois aussi mois bi ñu ko génnee bi ñu koy génn ñi mu tuddu ñi ñëpp ànduñu ak ñoom. te malgré ñii nii ñëpp am nañ 54 pour cent. élection législative yi nga xamante ne y' a deux ans de cela. mais yow bi may tontu bi may tontu présidentielle foo nekkoon. s'il te plaît laisse-moi développer présidentielle nga ah, xam te plaît présidentielle bi ñu ci génnee Ousmane Sonko dafa taxaw. woo leen ba ñu ñëw mu ne leen coalition Diomaye existé tul. boo paree moom mooy bu ngeen bëggee ngeen ñëw ci bannière Pastef ma ne leen venez vous loolu passé naa foofu laisse-moi développer s'il te plaît euh, loolu mais bul jaxase nga sujet par sujet lay topp man du ma jaxase ay sujet parce que ba a yeewu. non non laisse-moi développer xam nga dafa am élection yoo xamante moom moo fi jógee. gis nga parti buy dox ñoom gis nga ñoom dañu yàgg ñoom ñu ci ay 2022 ñun ñu ngi ci 2024 ñun baromètre yu ñuy jël mooy élection yi nga xamante ne fa lañ jógee élection yi ñu jógee 2024 la ñun su loolu la xool ñun fàtte nañ législative mu suñu ginnaaw. mais xoolatuñ ko sax. moo tax le réveil sera brutal. parce que ñu boobu ba léegi population bi ñu ngi leen di wax tijji leen seen bët ngeen xool mais ngeen bañ lank nañ dem. alors yaakaar naa ne Karim am ñi nga xamante ni tey ji ànd nañu.